rahmatullahi wa barakatuhu man nga sëñ Abdoulaye Mbacke moom suñu Cheikh Olam suñu sant ñu ngi siyaare siyaare Cheikh Olam suñu Mbacke ci suñu bi yëpp ak mbokk siyaare kilifa yi ne yëpp it siyaare yoon murid yëpp ak bi ñaan saa borom dogal ñu ànd ak jàmm ñaan bi yëpp Euh, yàlla dogal na euh, lu matut 48 euh, heures ci ginnaaw dañoo génnoon doon wax ci président ci ñëw gi bi ñëw Touba yàlla dogal mu bëri coow lool ndax waa APR yi ci boppam ñoo génn di wax ne maanaam di politique ñëw Touba bi ba sorti bi ma def ñu koy politique ma leen di wax ne ñoom waa APR ci boppam nañ xam ne Serigne Mountakha màggal gi la tal murid yi la tal adduna bi la tal Sénégal la tal adduna bi la tal ñu bàyyi politique bi ñu politiquee hôpital bi nga xam ne dañ ko waroon a defal Touba bu yàgg ndax Touba day ville sainte di deuxième capitale boo xam ne lim def ci Sénégal benn capitale wala benn département wala benn commune wala benn région bu ko def fii ci Sénégal amul Touba di deuxième capitale kon lim fi def Touba di dugal économie bi bu toll ne lim fi dugal ci Sénégal magal Touba gi rek li fiy dugal ay milliards deux cent cinquante milliards fii Touba di dugal économie bi bu toll ne liñ fiy dugal ci Sénégal magal Touba gi rek li dugal ay milliards deux cent cinquante milliards fii semaine magal rawatina nag is yëpp économie bi bu Sénégal li fi Touba di dugal kon bu ko defaree hôpital da ko war a defar xëy da ko yeex a def ñu koy politiquer di wax ne bu ñëwee dina ko ubbi loolu amut solo ndax dafa waroon a bàyyi ba mu egg ba mu occupé tàmm na nag lu mu commencé bala moo egg mu ubbi ca li ci ëpp yi lu mu diggee woon la la mu diggee woon defu ci dara la gën a néew la ci def di profité di ko ubbi ginnaaw mu xam ne jeexal ndax dafa jeexal ndax troisième mandat bu baax yàlla dogal nag président day ñëw Touba comme taalibe yëpp di màggal si ñuy gàttandu taalibe yëpp moom comme taalibe yëpp la day màggal si rek sëñ Mountakha ñëpp la woo jagleeru ko moom président ñëpp la woo bi muy def bi muy def déclaration ci safar gi dafa wax ne ñoo ngi woo taalib bi yëpp ñoo ngi woo jullit yëpp kon bàyyiwul kenn ñoom waa affaire nag buñ ko politiqué naan sëñ Mountakha dafa woo président woowu ko moo doon président Sénégal Touba doon lim doon Sénégal mu war a ñëw màggal si comme yëpp ndax moom lañ dégg réew te Touba toll na moom ci réew kon waa affaire buñ nañ bàyyi caaxaan yi nañ bàyyi fomi nañ liggéey ca bàyyi fomi Touba ngi nii ak département Mbacké ku ne xam na ne législative yi 37000 voix la fa la fi amul 2019 moo am fa 67 yu teg kon Touba ñoom ngi koy woteel lañ war a def moom ñoom mi moom li mu war a def moo ko defu ndax ku ne xam na ne assainissement bii ak nawet bii Touba ni mu toll am benn euh, benn benn benn benn septennat de rétention rek benn benn dong amatu muy Kër Ñang ak benn stockage dong dong dong yoonu daru loolu mën a ñàkkal Touba war li ma ko waxee waroon naa am lu ëpp. maanaam bassin de rétention ñeent wala juróom doo benn central doo ko am stockage mag ci amu fi benn fi am moo waral assainissement bi gis nga ni mu ay famille famille ak ay këri kër ñoo génn ci Touba gépp ëpp na junni ëpp na téeméeri fan ndax yoonu daal la fa génn ëpp na 60 famille Daaru Xaddim ñaari quartier boo ëpp na téeméeri famille yoo xam ne fi ne nii amuñu fu dëkk ca màggal gaa ngi ñëw ca pompe ko ca defuñu ciy benn kon état moo deful la mu war a def kon buñ ko politiquer nañu jàppale ci assainissement bi jàppale ñu ci lam ñu dig lam lam ñu digoon muy fexe ba Touba mu dolli tëli yi Touba kañ la waroon a am deuxième corniche ni mu toll kañ la waroon a am deuxième corniche mu war koo def defu ko di ñu politiquer foo euh, respecté wut kenn bu ñuy wax ne dafa respecté si montaxaa dafa respecté kilifa diine yi respecté wut kenn moom président kilifa diine yi yàgg nañ koo ñaan muy bañ sénégalais yi ñaan ko mu bañ kon respecté wut kilifa politique yi nañ bàyyi caaxaan nañ bàyyi fomi nañ liggéey ca bàyyi fomi Touba ngi nii ak département Mbacké ku ne xam na ne législative yi 37000 voix la fa la fi amoon 2019 moo am fa 67000 voix yu teg kon Touba ñoo ngi koy wote lañ war a def moom ñoom mi ngi koy def waaye moom li mu war a def moo ko defu ndax ku ne xam na ne assainissement bii ak nawet bii Touba ni mu am euh, benn benn benn benn benn setaine de rétention rek benn benn dong amatul muy kër ñam ak benn estogas dong dong dong yoonu dëru loolu mën a ñàkk la waroon li ma ko waxee waroon naa am lu ëpp maanaam bassin de rétention ñeent wala juróom doo ko am benn central doo ko am stockage mag ci amu fi benn fi am moo waral assainissement gis nga ni mu demee ay famille famille ak ay këri kër ñoo génn ci Touba gépp ëpp na junni ëpp na téeméeri fan ndax yoonu dara lu fa génn ëpp na 60 famille Daaru Xaddim ñaari quartier boo ëpp na téeméeri famille yoo xam ne fi ne nii amuñu fuñ dëkk ca màggal gaa ngi ñëw ca pompuñu ko ca defuñu ciy benn kon état moo deful la mu war a def kon buñ ko politiquer nañu jàppale ci assainissement bi jàppale ñu ci lam ñu dig la lam ñu digoon muy fexe ba Touba mu dolli tëli yi Touba kañ la waroon a am deuxième corniche ñem toll kañ la waroon a am deuxième corniche mu war koo def defu ko di ñu politiquer fon euh, respecté wut nag bu ñuy wax ne dafa respecté si Mountakha dafa respecté kilifa diine yi respecté wut kenn moom président kilifa diine yi yàgg nañ koo ñaan muy bañ sénégalais yi ñaan ko mu bañ kon respecté wut kilifa Cheikh Abdou Mbacké Gaïndé Fatma mi nga xam ne moom lañ def ministre conseiller Touba nga xam ne département bépp liñ ko voteel 67000 voix mu am ko fi ñu am benn ministre conseiller nga xam ne Touba département bi li ko woteel dong am na région yoo xam ne li ko woteel Touba département Mbacké dong ak Touba moo ëpp fuuf li ko woteel ci yeneen région yi ci département nga man fa am benn conseiller kooku yi jëriñu population bi dara bi mel ni mi amee kenn gisu ko mu jël ay responsabilité am dem man cee waxtaan ak Cheikh Bass ñu waxtaan ak seen bi ñu bind ay rapport ministre bi ñëwee ànd ak ministre assainissement ñuy liggéey kese ca waroon naa jiitu avant. tey nag xam ne population bi Touba defu fi dara Cheikh Abdou munoo wax ne am na ñaari nit loolu na ko état enquête ca xam ko ah, nit buñ la falee ngir population ngir talibé yi donte ab simple dong la la ñu fal moom moom la ñu président fal defal muy Cheikh teewul moom it war naa am loo xam ne da koy def ak état lu mu gis ci lu waa Touba war a am ca ëmb mu bind waaye du ko def ay état mu ngi fooy di ñu di ñu politiquer di politiquer Sénégal di politiquer waa Touba nañ ñu bàyyi moom nag na xam ne buy ñëw sëñ bi moom kenn du du du gan gan moom kenn du ko kenn kenn kenn du ne doo dugg ci ci ci biir kër ci ci biir kër wala ci biirub dëkk ndax sëñ Touba ñëpp la woo ci màggal bi ca moom gan la ko yëpp waaye nag ñi nga xam ne voté nañ ko 67000 voix yu mu ak assainissement bi nit ñi sonne ak courant bi ni ni ñàkkee ak ni dund bi seeree fépp ci Sénégal ñi nekkoon ci département bi ca votel ko moom buy ñëw lu jege Touba ak biir Touba moom kenn du fa yuuxoo président kenn du ko def dara lu ko waaye fi nga xam ne mooy sorti bi mu fay dugg ca Sëñ Muntaxa kenn ku ne na ne dane ah yëfi politique moom aaye naka Touba ak lu mën a doon ci yëngu bu koy def na nga génn defee ji ko ca ca ca ca Mbàkke kon foofee di Mbàkke ci buntu Touba lañ koy def mas a nekk ci ci ci ay kilifaam topp na la topp gu wér di koo xam ne sëñ Tuubaa dong ko ñëw lig si musu koo ñëw dara musu koo ñor moom sëñ Muntaxa kon nañ bàyyi caaxaan yi taalibe yi gis nga ko bi mbënn mi amee cinquante milliards la jox la la joxe Touba kon moom taalibe yee ko ñor gis nga it corona bi bi mu amee deux cent millions la yëkkati joxe nañ bàyyi caaxaan ca bàyyi si mu doxaa ca bàyyi ko taalibe yi ca bañ koo dugal ci politique ndax politique moom sëñ Tuubaa moom kenn ku ci ne xam na sëñ Muntaxa ba ëpp muy tukki gisul loolu xoolul loolu nekku ci waaye ñi nekk ci wetam ñu dénk leen kàddu bi nañ moytu loolu nañ bàyyi sëñ bi ñuy politique hôpital bi muy ubbi ji yow ñi bëri nañu ñu ko mën mënoon ubbi ji waaye sëñ bi ñu bëgg a mu dem di ko ubbi ji ca hôpital ba éggut ca li mu waroon a defal Touba ëpp loolu assainissement bi nit ñi sonn Touba am ñaari hôpital donc mu ñuy politique loolu mën naa ñàkk kilifa yi nañ wax ak moom niñ dénk kàddu yi cay wax ak ñoom lu mel ni midi